jërëjëf mbokk internet yi bëri ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne del soit ak yéen ci beneen jotaay xam-xam kii nag na mun ngeen ko lool lool lool bu ma jëmul suñu mujjeelu suñu dernière émission bi ñu mujjee mooy keroog bi Lac defe naa di euh, di bëre ak ki moom mooy Jackson sëriñ bi ah làqu woon tuuti ci diggante kurus geeg alquran geeg àll beek ba tey jii nag ma ne ko nag foog ñu waxtaan ndax keroog bi ñuy joxe nouvelle at mi deux mille vingt quatre comme ni ko daan defee sëriñ bi révélé woon na yu bare bare bare bare bare surtout ci ndaw ñi mbiru Abdou Aziz Dabala Aziz Ba ak gune googu di waali kaleen faatoon jàpp nañ ko biig ca jannatul maawa euh, mu ngi tudd euh, Abdoulaye Diawo ñu gën ko ci Modou Lo nee na ñoo am nañu ay complice ndax tuddoon nañ ci Ndeye Yérim ah tuddoon na ci ndax le lay tuddoon nañ ci ñu bare bare loolu lépp tey dañ ko waxtaane sëriñ Mamadou Bollé nga lay nuyu bàyyi la nga ne nga saan ci biir alamin alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu sumay taalibe di nuyu samay soppe di nuyu sumay waajur di ñaanal yàlla seriñ bi yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem waaye di nuyu àddina yëpp te di leen ziyaara di leen wax ne xam naa ne jàmm xew bi nag ñu bari yonne nañ message laajte nañ waaye nag sëriñ dafa am lu moom ci loolu rek lañ nekkoon hmm. waaye nag alhamdulilah yàlla defal nañu tawfiq ci liñ ne woon yépp di wax tey nag bismillah eh, dal ak jàmm waa bi pro média nga hmm. xam ne àddina yépp foofu lañ ñuy xaar waxtu ne hmm. ci wax ak jaamu yàlla di leen wax ñoom ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi ka faatul Aziz Dabala feeñ na. waa alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu baax ndax lu tax ñuy sant yàlla mooy waxtu nekk buur dama koy faral di wax ma ne bokk nañ ci jaam yi nga lépp loo xam ne wax nañ ko jaamu yàlla yi dañuy dox ba agsi foofu. Mhm. waxoon naa fi ci gaal yi. Mm-hmm. jamono yi ko ndaw ñi jëlee. ak accident yi sax bu yàggul. <laughs> accident yi wax naa ci lool. Mm-hmm. ba ci deewu xaaraan yi nga xam ne wax naa ko. Mm-hmm. te loolu yëpp li waral mooy mooy dafa am loo xam ne moom la nit ñi desal ginnaaw te loolu moo war a njëkk ci nit ki. muy kaaraange. démb maa ngi wax benn nit ne ko. am na nit ñoo xam ne suñ waxoon ne fii ku fi jaar dee ñoom mën nañ fee jaar te dara du xew te dara du xew mm-hmm. ne ko parce que pare nañ dañoo pare ci zaahir pare ci baatin mm-hmm. rawatina ci baatin foofu nag lañ toll jamono bii waxuma la Sénégal mais àddina bi fi tollu muy kaaraange xam nga kaaraange mm-hmm. lim mën a def dafa bëri kaaraange su ko nit amee même pexe sax bu ko nit di pexe sax du sotti Mm-hmm. bu yàggut yaa ngi dégg Amérique koo xam ne nii wax nañ ne dafa violé te te nee neen defut dara mm-hmm. tey nit ki soo amee kaaraange pexe yooyu sax du sotti ba ci mbirum Sidi Diop wax ji nga waxoon ci moom dafa jéggi dayoo loolu yàgg na bi wallahi asi wax naa ko ñaari at ci ginnaaw wallahi wallahi ñaari at ci ginnaaw wallahi xam nga nit li gën a neex yooyu doo ci bëgg a dellu xam nga lu tax mm-hmm. mooy da wax loo xam ne àddina bi yëpp dégg nañ ko te seetaan nañ ko. Mm-hmm. te loolu bañ koy wax yaakaar naa ne. dara xewul bu fekkee xel rek la. Mm-hmm. dag na naax kii dafay wax rek. waaye mm-hmm. tey tombi tey loolu agsi nañ ci. moo tax bi ma koy wax ne na taxaw ci boppam. ci boppam wallahi azim. lim yaakaar amagul. loolu du tey. moo tax nit su amut kaaraange muccagul nit su amut kaaraange man naa wax ne dundam sax mu ngi ci danger mm-hmm. Mm-hmm. kaaraange mooy jël benn doomu aadama ci dundam pour dundam mën a pour alalam mën pour mu mën a taxawal dara ndax nit soo amul kaaraange tey ji mën naa am lu nekk di ko dajale ay at mais gis nga benn bésay ñëw rek màbbu lépp ñaata nit ngay mm-hmm. denc ñu denc ay million wala ki milliards waaye gis nga bu jafe-jafe ñëwee da ngay gis léego-léeg li nga gën a yaakaar na tey soo ko jaayee situation bi décanté wu da koy jaay tey suba mu mel ni dafa am lu ko lakk billahi barke alxuraan maanaam dañ maa bëri na dañ maa catoog dañ fekk na kooku moment bi mu war a sampee boppam gis nga kaaraange li ci nekk li ci dugg dafa bëri mhm. kaaraange samp sa bopp dafa dugg ci biir kaaraange mhm. dëgëral say tànk dëgëral say tànk ba nga ne cocc taxaw mhm. wërsëg woo xam ne dafay ñëw di dajaloo toog nit bu amul kaaraange mënta am loolu hmm. ba ci wér gu yaram nit su amul kaaraange lu nekk mën na koo dugg dëgg la dëgg la lii nii yëpp dafa dajaloo ci xeetu kaaraange nga xam ne nit ki def ko war a am hmm. waaye nit ñi léegi dañoo toll ci jamono boo xam ne gëmuma dara gëmuma kenn yàlla laa bàyyi sax bopp gëmuma kenn képp ko la koy wax dafay xëy rek bu xëyee rek nga gis la gis loo xam ne naa auzu billahi mina cheytaan mais mais sëriñ man xam nga ma jaaxal nit di fréquenté ak nit màggandoog moom jurandoog moom xëy ray waa loolu moom waa xam nga tey mm-hmm. kaaraange moo nekk foofu mm-hmm. foofu lañ toll mm-hmm. xam nga ànd ak nit ay at ñu xëy ñu na deena billahi i nga xëy sax boom ko ñu ne <laughs> ko rey tey xaritu benn bakkanam man loolu moo ma jaaxal sëriñ bi waaw nañ xool lan la ba pare mm-hmm. Mm-hmm. loolu tam dafa am solo waaw waaye li mënta li nga xam ne tey man nanguwuma ko mm-hmm. doomu aadama ak lu ngeen man di jotee dal dafa ci may ma xaalis donc may ma xaalis may ma may ma xaalis damay màggali mais sëñ bi est loolu rab mënu ko. waaw ay rab kay li man ci nit bari na rab dinay def ñaawte ba la preuve. Mhm. tey nit kuy daanu rab léegoo léegi lu mu mën a def ci perturber ci yàq bu fekkee ñëw na ci borom xam-xam ba mu faj ko su yeewoo rek da ngay gis muy jooy lan moo ma indi fii. Mhm. lu xew lu tax fekk lim jot def yëpp suñ ko ko tegaloon ni danaan la de kii du man Hmm. moo tax téléphone yi d'une part baax na ndax léegoo la nit di def naka su dul noonu ñu filmer lépp bu paree ñu tegal ko ko ko yow la de kii yow man maa doon daanu nii man maa doon fetti fetti nii man maa doon dóor nii man maa ko wax hmm. moo tax gis nga rab hmm. dafa bon waaye jinne bu bon tamit dafa bon waaw te te bi li ma jaaxal mooy jinne yi jinne ñu ngi sàdd rek waaw ba ñu def lu leen saf ci kaw nu ba ci de ba ci tali bi tali bi moom jinne yi ñooy gën a ray mm-hmm, mm-hmm. boo bëggee dégg-dégg ñu ngi naan accident yi waaye tali bi jinne yi ñooy gën a ray ndax nit dinay daw ba ci yàgg li muy gis du la ko wax mm-hmm, ah ñu ñu oto xam nañ ci da bi ngay dawal ba ci yàgg li ngay gis yow doo ko xam su ko defee nag loolu moo tax ndaw ñi gis nga li waral loolu tamit ba léegi sama wax ji dafay dëppaat mm-hmm. gis nga mag ñi daan dawal mag ñi mag ñi daan dawal oto di transporteur mm-hmm. boo demee ba léegi ñuy yor gàllaaj oto billahi wallahi billahi mag mag mag yi doon dawal boo demee ci demal demal ci demal ci garage yi ñi nga xam ne ay mag lañ béjjaaw mm-hmm. buñ lay nettali ci dawal liñ jot a gis waaye ba léegi ñooy mujj nekk sax coureur yi waaye ndaw yi léegi da ngay gis ne dañoo foog na dawal ci kattan la Mm-hmm. fekk du ci kàttan mm-hmm. gis nga mm-hmm. mboolem koo xam ne mu ngi def transporteur maa ngi koy dénk di ko laayee biir na dem wuti gàllaaji oto gàllaaji yoon ndax gis nga tukkikat yoon wi dafa am borom te gis nga am na waxtu yoo xam ne su ci nit ki di daw su amul lum àndaale pare ci boppam ala kulli haal jee mën na ko dal xam nga ñoom tey sëriñ si nga xam ne faale wuñ leen mën naa wax ne faale wuñ pour nga gis accident yi kañ nga kañ nga ci gëj gis ñoo sëriñ bu dee. ab sëriñ laa bariwul nañ waxante ci xel. yombul de amul de. sax waaye pour nga gis accident yi ñu génnee ci ne diw moo ne sëriñ nangam bokk na ci amut. wala nga dawal ci tali bi bañ ne sëriñ nangam moo def soog amut. Mm-hmm. parce que li waral loolu ñoom xam ne li doomu aadama bi dundam lan moo ci war. ñoom dañ ciy pare sëriñ balaa muy génn dana saraxe mm-hmm. sëriñ balaa muy dem dana wax na bind leen nangam sangoo ko mm-hmm. su fekkee ñi muy ànd ak yëpp la dina la wax ne nangam nangam bu duggee ci oto bi dana wax ne def leen nangam ak nangam. waaw loolu dëgg la moo tax da gis taalibe yu bari ànd ak sëriñ tukki duñ ci sax am problème. waxtu na sëñ bi jóg la ñu jóg parce que xam nañ ne sëriñ bi du jóg te pare parewul dafa am benn sëriñ bu may nettali lu mel noonu góor gu ba bari xam ko lool dañu def benn choc jëru <laughs> moom benn moo bi bi bi sàppari ñëw daa bi ñii dee ñii gaañu teew dara jotu <laughs> la ko waaw dafa am lu fi nekk lu fi nekkoon te du fi mas jóg muy ñaan yàlla. waaw loolu ci insister. ñaan yàlla ñaan mën mm. na lu ne. def na lu ne wax ci mm, wala yàgg nga wax. mu ba léegi ñaan mën na lu ne te def na lu ne. Mm. te foofu la àddina bi nekk. am na ñoo xam ne boo leen xàccee wax leen ne ñaan mën na dañ naan la sa waay maa koy dëggal loolu lañ la ciy tegal. sa waay wax ne maa koy dëggal. ndax nekkoon naa ci nangam waaye bi ma yàlla booleeg nit nangam keroog bi ma toogee di ma wax ma jugee këram ba bésu tey bii may wax ak yow xaw ma ku koy foye waaye du man moo tax ñaan yàlla ñi ci dëgg ñi ci nekk te gëm ko boo xoolee chaque jour ñu ngi leen di mbaw de waaye noonu la seen mbir yi di yokkoo ñoom waxtu nekk mm-hmm. ñooy taxaw wax naa benn waaye na nga tey mu ne ko waa dama lay jox exemple tey nguur gi fi toog nii mu ne ma ne ko toog nañ yal na yàlla defal lañ ma ne ko waaye am na ni ñoo xam ne nguur gu mën a ñëw di nga ànd ak ñoom même soo leen bëggee faagaagal du sotti te loolu yàllaa koy def te dañoo pare di ñaan yàlla ci seen bàyyiwuñ seen bopp moo tax waxtu wu nekk boo ñëwee li lay méngaloog ñoom sax yow doo xam loolu nag ñaan yàlla moo koy def kon maa ngi ci ndaw ñi maa ngi dénk ci àddina yépp ci góor ak jigéen ci mag ak ndaw gis nga tukki naa fi bu yàggul sama jaaro bi da ngay da ngay foog ne sénégalais waaye tukki naa fi bu yàggut ci nit ñi xonk liñ ma xamal da ngay gis na ñoo gis ne damaa bëgg sa bàgg bi bii ndax ma ne ko ma ne ko lu tax man ma lii bi ngay ñëw rek dafa am lu may lu may attiré loo xam ma xam ne kon yaa quelque chose ma ne ko waa baax na incha allah gis nga gàllaaj dafa nekk loo xam ne dëgg la hmm. mu neex mu naqadi sarax hmm. bu yàlla nangu hmm. dëgg la dafa am lu muy fànq am lu mu lay apportel am lu mu lay defaral ñaan yàlla dëgg la maa ngi lu am la lu am la lu nekk la loo xam ne nit manta wax a wax ba génneeku manul nekk ñaan yàlla mu ngi palaasam bi mu nekkoon fees fa dell nee la ñaan waxtu woo demee bañ la ñaan amatul kenn ku nekk na nga fexe nga miiraat sa bopp jël li nga am jéem koo jébbale te xam ne bés penc taxaw na parce que yàlla su demee ba amatul ñaa jaamam yu koy ñaan mayeetul rek xamal ne kon ñun bés penc boobu mu yàlla di wax ci alquran taxaw na ñun ñëppay dem maa ngi sant yàlla bu baax nag ci yàlla lim ñu may ci xam-xam mu nekk lu weer nga xam ne bokk nañ ci jaamam yi nga xam ne heure bu ñu waxee rek am na ñoo xam ne noté nañ xam ne bés boobu dana agsi hmm. loolu nag maa ngi sant yàlla buur benn baat lay tëjee di la ko wax mooy jàmm bu xeebu bii di wax ak yow lim gën a soxla ci àddina di ko wax waxtu wu nekk mooy ku gëm ne ñaan yàlla amatul dem naa fu ku gëm ne ñaan amatul sëriñ Maamun jàmbu xebu bi tàllal na la loxo kana ñu bañ a déggante wala yàlla def suñ ñeent bët yi dajewut mm-hmm. waaye yàlla dimbale ne ma ba képp ku ma dégg wala ma gis ko soxlaam boobu yàlla dana ko faj ndax dama ñaan yàlla képp koo xam ne ajoom narut faju yàlla bu ma ko gis yàlla bu ma ko dégg fi may tëjee mooy yàlla daf ma koy wan chaque jour dafa am koo xam ne avant màggal gii la waroon na ñëw ci man jugee Italie la jugee ñëw ne fi mi ngi war a ñibbi man naa mu may dégg bu ma bu ma bañu toon tudd tudd damay tudd turam te boobu moom mën na koo dëggal ñëw na ba Dakar bés boobu yàlla ji ci la doon taw yendoo taw ba suuf dafa mujj dem ñibbi bi mu woowee mu ne ma ah, bi baat li nga ñaan dafay bëgg a dëgg ci man ma ne lan la mu ne ma dégg chaque nga ne ku aajoom na yàlla bu ma ko te man ñëw naa ba Dakar di la woo mënuma laa jot te yàlla jaa ngi taw ni ba damaa mujj ñibbi ma ne ko yàlla ci mbaaxam maa ngi koy ñaan mu may la ba nga man maa gis ndax ñëw gi nga ñëwit te gisoo ma man sax neexut ma waaye dafa fekk ne ma ne ñaan bal la woo xam ne bu ko yàlla nangoo rek nangu na ko jaam bi mënu ci dara te loolu alhamdulilah moo nekk ci ñun ñu ngi sant yàlla bu baax di la wax ne bunt yëpp ubbeekuwaat ne ñëw nañ ku yàlla def nga jot ñu rek li nga bëgg dana am ci kàttanu yàlla waxuma ko nag ci sañ-sañ wala da waaye may gu ñu yàlla may la ñu koy sant te jaam bi waxtaanee xéewalu yàlla yi sant yàlla la wa amma bi nixmati rabbika fahadis moo tax ñuy waxtaanee xéwal yi ñu yàlla may di ko ci sant te sant yàlla xéwalu yàlla yi ci la bokk ñàkk sant yàlla loolu weddi yàlla te loolu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla yàlla dimbale ñu yàlla na yàlla def ñu ngi jógee ci màggal ñaan yàlla lépp luñ fa ñaan yàlla na yàlla nangu ko ñi demoon yàlla nañ ñëw ci jàmm fekk ñi ci jàmm ñaan yàlla ñu ngi jublu tamit boo xoolee Euh, wàllu yàlla yi ñoom ay branchement lañ mhm. ay branchement lañ fu mu te ne ñu ngi dugg ci weeru yenantu sallallahu alayhi wa sallam ñëpp koy fuglu ñëpp koy fuglu di ko xaar ñu ngi génn ci weer woo xam ne ni Sénégal te ñu ngi màggal Cheikh Amadou Bamba ci nga xam ne àddina bi yëpp ñu ngi koy fuglu boo xoolee loolu sant yàlla Maulana Cheikh Tidiane Chérif Radhi maqaamaam bu mag buñ naan katmiya ci weer wi la ko jotoon tijaan yaa koy màggal kon da ngay gis ne ñoom ñëpp ay missionnaire la yoo xam ne ni waxtu ne rek ñu ngi am lu ñuy tabax te li ñuy tabax noonu lu ko màbb nag du yomb mm. ndax buur yaa nga fay dégg moo tax nit booy wax waxaar rek waaye bul xam am na ñoo xam ne foogoon nañ ne màggal gi ni muy mel nii dootu du mel mm. am na ñoo xam ne foogoon nañ ne sëriñ si dootuñu jox àddiya mm. ñu doon yàgg naa toog fi mel yàgg naa toog fi mel la ñi yàlla teral jox leen lim leen jox loolu def koy yokk waaye du ko du mindeef moo koy wàññi mindeef mm. du mooy wàññi li yàlla jox jaamam yàlla jox na jaam yoo xam ne arme yoo xam ne lépp luñ bëgg waxuma ne luñ wax de luñ bëgg rek loolu dafay dox ba ci seen ron tànk yi ak nga jëriñoo ko yàlla nañu yàlla ci boole ci jaamam yooyu nga xam ne luñ bëgg mu am luñ wax mu am luñ ñaan mu nangu ko képp koo xam ne soxlaam narut faju ci jaam bu xeebu bii di wax ak yéen yàlla bu ma ko gis yàlla bu ma ko dégg yàlla bu ma ko xam sax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim